presse digitale ñu ngi di nuyu bu baax ñu am mbégte dellu si ak yéen ci seen actu du jour ah, dañuy dellu si ak jàpp goo mi ngi wéy ba léegi kii di Ibrahima Gueye nay ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko di njiital Pastef daal nañ koy placé lii en garde à vue lañ koy toppee nag mooy l' l' insurrection moom moom la di Ibrahima Gueye nay leer kon nag daañu ko eh, li nga xam ni rek moom moo di eh, garde à vue gannaaw nag ba ay tension yu métti métti amee woon ni ki démb ci di gone yi ak ñi nga xam ne ñoom ñu di tàkk der yi nag euh, kon bi kii di Ousmane Sonko doon wuy jëfale nga xam ni moom moo di tribunal du palais de justice ci dossier Prodac bi dox ci ki nga xam ni moom mooy euh, moom ak kii di maam mbay Niang loole nag kon kii di Ibrahima Gueye ne leer lañu ca def ki nga xam ni moom moo di leaderam di boobule di Ousmane Sonko du ko métti euh, ba fa méttiwaay gi jéggi dayoo lool moom mi di Ibrahima Gueye leer nag yëkkati ay euh, kaddu yoo xam ne daal di na koy wax ñii di euh, justice nag daal di ci gis rek yaakaar ni dafa daal def li nga xam ni moo di appel à l'insurrection ba tax daal nañ ni ko nappuus daal di koy placé li nga xam ni moom moo di en garde à vue moom mi di Ibrahima Gueye leer mu doon xibaar goo xam ne ñu ngi koy daal di jot léegi nii rek moom Ousmane Sonko nag ci fàttali mi ngi woon fële kon ca Uh, samu ñu daal di rek kay suma assurance ñu daal di koy kon a internet foofu rek euh, pour euh, ay euh, soins médicaux yoo xam ni gannaaw ba ñu ko pompé benn gaz boo xamante ni si nii rek moom mii di Ousmane Sonko xam leen na ci ni daf yi doon amee lii di ay maux de ventre yu métti lool ba tax nag loolee daal koy jural ñu yóbbu ko ngir saytu li nga xam ni moom moo di yaramam loole nag jur na kon ak mer ga fut ñi nga xam ni ñoom ñoo di patriote di loolee nag moom moo waral kii di Ibrahima Gueye nay leer kon na ci kàddu yu muy yëkkati ñu daal di ko ci woowee rek eh, di ko toppee li nga xam ni moom moo di appel à l'insurrection mi ngi noonu mbokki internet di 313 digital eh, xibaar gi léegi lañ leen ko jot rek ñu ni nañ leen ko indil ko defee dinañ wéy di ko toppandi leneen lu ci manteem ñu indiwaat ko ci fi nga xam ni moom moo di fii ci 313 digital laata loolu wi leen di abonné ndax ngeen di mën a ànd ak ñun jërë ngeen jëf